télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi li ci gën a fës bokk na ci douanier bii di. ndem si yàlla Léon Yuga Faye mi nga xamante ne ji kon dañu ko faat ca Rosso ci anam yu doy waar tey jii lañu ko rob rob ba amee woon ci hôpital Saint-Jean-de-Dieu bu ci diwaanu Thiès bañ ci noppee lañ ko jébbalmal boromam mu ne woon ci teewaayu mbooloo mu takku ci xarit ak ay am di jàmm ñu fas ko ñu jébbal ko boromam nag fële nga xamante ne ji moo di ca Morola gamu fekk baax moom Léon Yuga Faye tolluwaayu coronavirus bi ci réewum Sénégal ak bilan bi ñu am tey tukkee ci ministère de la santé action sociale wax na lu toll ci juróom-ñaar ak fukk ak ñaari doomi aadama yu yees yu corona wax ne juróomi doomi aadama yoo xamante ne ji ñàkk nañ ci seen bakkan ñi corona bi tëral ba ñu sonn lool di cas grave ñu ngi toll ci juróom fukk ak juróom-benn. Saïd Fall mooy kii njëkk a dégg monsieur le préfet ci di euh, diwaanu Kër Massar moom mi ne woon jamono préfet bu Gossas tey jii kon la ko takkal ndombal tànk li jébbal ko lenge yi mu doon préfet bu Kër Massar xew-xew yi amee woon ci teewaayu kilifa yu bari wàllu tàggajaram yaram football ak li ñu ci nemmiku di loo xamante ne ji ñu baree bari kon ànduñu ci ba tax am ñu jóg taxaw li pétition jëm rek ci di ñaaw lu déggoo gi nga xam ne dox na ci ñeenti candidat yi doon xëccoo bopp fédération Sénégal bu football li ñu bëgg mooy ñu dellu ci gannaaw des na ci ànd ak Cheikh bu jara ci ay leeral mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxee la ñu faram-fàccee leen ko. dellu leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko ñu jëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaar rek lu ñeel ndéem si yàlla yu Yuga Faye moo di douanier bi nga xamante ne ji ca Rosso la ñu ko fekk faat ko ci anam yu doy waar nee nañu ay bali fetal yu bari la ñu ko dóor ba mu faatu moom nag tey ji xëy nañu ko rob rob bi amee woon ci hôpital Saint-Jean de Dieu ba ci diwaanu Kees doonoon ci teewaayu xarit am di jàmm ay mbokk ak ñu mu bokkal douanub Sénégal lu aju ci euh, fañ ko jébbal boromam nag moo di ca Morolan ga nga xam ne fa la fekk baax Cheikh Anta Diop ciy leeral. faat bi ñu faat adjudant des douanes bii di Léon Yuga Faye ñu fekk ko ci néegam dóor koy sox mu faatu ca Richard Toll indi na njàqare ci dëkk bi mu dëkk ci ville Tàngoor dëkk bu ñuy wax maire nekk ci commune Morolan ci département bu Tivaouane ay xaritam jegewaaleem ay waajuram ñoom ñëpp méttit lu mbir mi vraiment maa ko yar man mii parce bu fi ñëw fekk xale bu tuut la en neexuma te moom vraiment moom liggéey liggéeykat la ñafakat la bëgg na nit foo dox fii fii Mont Lamp fu muy liggéey wax bu benn la lu ma soxla kooku war waruñu ko bàyyi yàpp nañ ko mais dañ ko war suñ suñ ko mënoon ñu rey ko li xew Sénégal la dafa metti il faut Sénégal Sénégal nguur gi jóg ci su ko su ko jógul du baax Ida Sisit moom it jigéenam la woon te nee na dañ daan jokkool lu bëree bëri. taatu garab baa ngi nii fii ñuy toog nii mooy jotaay bi oto bi fii la koy gaare wàcc teraanga yëpp teg ci biti fii amul yi amul seen mu ne woo leen waa dëkk bi yëpp ñu ñëw ñu toog fii waxtaan. toog bi fii ba mu yàgg mu ne ah géey na xaaral ñu dem woo ji suñu tante ji ki ne laam moo nekk ni bu ñëwee mu toog moom tamit di ñu woyal ñu ne fi di tëgg di woy di fecc loolu ñàkk nañu nag ñàkk nañu ñàkk nañu ñàkk nañ koo xam ne soutien de famille la ay nit ñoo ngi yaakaaroon ci moom yaakaar tas na. ñu bàyyi nag yoon doxal liggéeyam loolee la waa Moralan di xaar. tey jii ci kilifa yi nee nañ dañoo bëgg nag mbir mi leer ki ko def ñu teg ko loxo. bilan bi ministère de la santé ak action sociale baaxoo bés bu yàlla sàkk jëm ci natt tolluwaayu coronavirus bi ci réew mi ci vingt 24 heures yi ñu génn bilan tey bi li mu wax moo di lu toll ci juróom-ñaari téeméeri doomi aadama ak fukk ak ñaar yu amee corona yu yees yu feeñ maanaam 712 nouvelles contaminations ñu jëlee leen ci ñetti junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk juróom-ñetti test yoo xam ne def nañu ko. Euh, juróomi doomi aadama ñàkk seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn ci mbas mi lu aju ci ñi wopp ji tëral ba ñu sonn lool maanaam cas yi bilan bi neena na ñi ngi toll euh, ci ñeen fukk ci kon juróom fukk ak juróom-benn maanaam ci cas grave lu aju ci ñi jàngoro ji tëraloon ba ñu wér war a euh, kon génn ci loxo yi kër docteur yi loole kon bi ñu defee seenub xayma ñi ngi toll ci ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom mbas moom di coronavirus bi ak ni nga xamante ne ji noonu lay doxee dem ba ñu baree bari kon am ci jaaxle lu aju ci ñàkk yi ak fexe ba wàccoo ak li kër docteur digle mu di geste barrière yi dara gënu ko ci ngir mën a tàggoo ak jàngoro ji gis-gisu professeur Koumba Touré kan la ab virologue la di recteur université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass bu lax sàkku na ci askan wi ñu wàccoo bu baax a baax ak geste barrière yi nga xam ne kër docteur moom la ñu digle ngir xeex woowule wala des koy déglu moom professeur Koumba Touré kan ci micro Mame Biram Diouf feebar bi mi ngi fi daa di nga dégg yenn saa yenn mbokk yi naan la dama grippe dama tooy dama loolu amul ku am lépp lu lay métti fi mu nekk nii ci yoo ci waxtu yi ñu toll nii xamal ne corona la dafay am ci ñu muy gëna a métti ak ci ñeneen ñi mais amul fi mu nekk nii fooy koy ñetti nit yooyu romb te amul kenn ku ci ne lu am amul corona amul. kër booy dugg te fekkoo fa kenn ku tëdd amul donc nañ ñëpp jël xeex bi def ko seen xeex bopp ñu mun a fàggandiku fàggandiku bi nag moom mooy lan ndaje yëpp nañ ko bàyyi ndaje bu mu munti doon muy ndaje bànneex muy ndaje naqar nañ ko bàyyi après li nga xam ne moo si topp mooy masque bi nga xam ne moom lañ am na ku nekk di takk sa masque moom laay tuddee confinement auto confinement na ku nekk di confiner boppam na ku nekk di raxasu di sàlloo raxasu soo amul ndox ak saabu nga yor sa gel soo amul sa gel nga yor sa solution hydroalcoolique te ku dégg na ñàkk yi ñàkk yi ñëwaat nañ ñuy tàmbaliwaat ñi nga xam ne ñàkk wuñu woon ñoom ñëpp nañ dem inscrire dem ñàkku ji ndax bu ñu ñàkkoo ñàkk bi dina aar ndax ñàkk bi dina tax feebar bi même bu egsee daf lay tisati du métti mais bu fekkente ne ñàkk woo dafay gën a métti ci ci la ñuy lore te fi mu nekk nii centre yi ñuy traité nit ñi centre yi ñu ngi fees il faut ku nekk xam loolu ñu jéem a góorlu fexe ba nga xamante ne bii waa kër docteur yi ñun jàmmal leen tuuti parce que sonn nañ depuis mars 2020 ñi ngi taxaw di liggéey di jàmmaarloo ak feebar bi boobu ba léegi il faut nag population bi góor góorgóorlu am na ñu naan naam amul mais ñi naan feebar bi amul ñoo ñu ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi nax seen bopp feebar bi am na koo dégg mu lay wax dafa sibiru dafa soj soj amul sibiru amul fi mu nekk lépp lu am corona la na ku nekk dugal lool ci sa bopp dem ci do kër docteur yi ñu saytu la seet la après boo déggee ne ñàkk am na nga dem ñu ñàkk la loolu moo la mun a aar solo ci xeex lii di coronavirus bi lu ni mel na kuréel gi di ASAC di association sénégalaise pour la solidarité et le développement lëkkaloo ak fondation Dianet fas yéene kon taxaw ci xeex wàllu mbas mi ci naka ay masque ak i gel la ñuy séddalee askan wi nga xamante ne yitte woon nañu ko te seen loxo jotul seen ginnaaw wooyu le wala dañ ciy teewlu kàddu yi maître Djibril War mooy président bu association boobee ñu déglu ko ak Cheikh Diop Younous Diatta askan fi nekk tamit ñoo wax dëgg yàlla kenn demul ñu des ndax ñoom ñooy ndey yi ñooy soxna yi ñoom ñooy yaraat yi kon ñoom tamit daañu gën a yopp jëf yi nga xam ne moom la daan def wàllu mbas mi tamit ni ñu koy moytu ko ba mu bañu dal tamit daa ci am maanaam cër bu ñu ci war a def ba tax ñoom nekk nit ñi nekk askan bi suba ngoon waaw lu mat juróom juróom benn junni ci ay masque ak lii tamit ay carton yu dul jeex nga xam ne ñoom bu ñu paree dañ ko jox imaam yi yóbbu ko seen jàkk yi délégué de quartier daañ ko am bàjjenu gox yi daañ ko am pour wasaare ko jox ko ci kër yi ne leen heure boo leen xëyee match laan ko jox école yi di ay élèves yoo xamante ne ji dañ fay doxal fitna ak jëf joo xam ne tegewul ci silwise di xotti ay kaye ak lakki blouse loole am ñu mu jaaxal lool bokk na ci ñoom askan way yeewoo fële ca yaraax lu ni mel tax na ñu amaloon am ndaje moo xam ne lañ ci jublu moo di wax yi yee ba ñu xam ne loolee jëf la jot waree su koo jëmee kanam ba ñu jugee ca ndaje ma kii di Souleymane kan mooy chargé de communication directeur festival son et lumière indi na ci ay kàddu leeral ñu déglu ko Pafara Ñing lu thème bi nekk loo xamante ni thème bu am solo la civisme ak citoyenneté li tax ñu tànn ko boobu nag dama ciy taxaw romb ci yeneen mooy bu ñu seetee Sénégal depuis mois de mars ak léegi gis nañ li fi xew ci manque de civisme bi ci am ci yàq bi fi am def lu dul noonu wax lu dul noonu ainsi de suite ainsi de suite ñu ni nañu jël civisme ak citoyenneté gën a jàngalaat nit ñi gën a recadrer waat xale yi waaye yar nit ñi plus particulièrement ñun fii ñu dëkk à Hann bërki démb dafa am loo xamante ne àdduna bi ñëpp laate nañ ko muy le cas de CM ku ko gis sax danaan lu tax ñu tudd ko waaye dañ ko tudd pour joyanti rek pour jubbanti gën a yar xale yi waaye ñu gën a am civisme ak li nga xamante ni moom mooy citoyenneté dañu gis ne ak lu ci mën a am rek ñaari baat yooyu bokk na ci li manqué xale yi mu nekk suñu ñaareelu thème. Saïd fal mi nga xamante ne ji kon moom lañu ñu def euh, muy préfet bu Kër Massar. nañu ko ci toogam tey jii ca la ko installé ci samedi ji yi fi doonoon ci teewaayu kilifa yu ñu ràññee lool ci réew mi euh, fàttali ne Kër Massar ba ñu ko defee département yàggul ki fa njëkk a doon doon kon préfet di Saïd Fall tey jii kon lañu ko teg ci euh, ak toogam leneen ci wàllu xibaar wutali fële ca Guet Ndar di foo xamante ne ji nimmiku nañu ay mool yu fa nekk jàmbaar lool ci seenu liggéey am ci ñoo xamante ne ak lu ci mën di doon feetu tabaski moom fu mu leen mën di fekk moo xam biir géej la wala dañuy ñëw jéem a amal tabaski googee ànd ko ak seeni mbokk dañ ciy ànd ak Ousseynou Diop. tabaski doon lu am solo ci doomu guet fu ñu mën a nekk biñ ko ratee ginnaaw ay weer yoo xamante ni dañ ko nekk ci àll bi lii da leen di may ñu gisante tabaski dafa doon loo xamante ni itam secteur yi day xumba lool ci jamono jile ndax xam nga doomu Guet-Ndar dañuy campagne ñii di nekk Mauritanie ñii di nekk Gambie ñii di nekk Kayar ñii di nekk yeneen xeetu dëkk waaye bu tabaski xasee ba des juróomi fan ñetti fan fu waaye mënante nekk da ngay ñëw. ñun ñëpp bu nekkee ndar xaju na fi benn licence yi matewu ko ñaareel bi mooy liggéey bi si ndar gi liggéey bi am ndar dafa metti looloo waral ñii di nekk mbuur fu ne ba gine Guinée. Bayat Badiane mag la ci guet ñu ràññee ko lool. nee na nag lii aadala la ci Guet-Ndar waajur yi daan nañu def ni heure bu nekk dañ daan liggéey mais fu leen liggéey mosoo mos a fekk bu tabaski jotee lépp loo rende da nga koy bàyyi moo daan seen heure de repos imaam Tidiane Ndiaye ci kàddoom di ko rafetlu jàpp ni sax gisante bi day gën a rattaxal seen i diggante nu masaan julli ba pare ba tam xarit dañu dem liggéeyi def sept mois huit mois neuf mois si àll bi après bu ñu ñëwee lu ñu am bari ak néew ñu dellusiwaat si askan wi bokk ak sunu ay mbokk ñu war jàppale seen mbokk jàppale leen jàppale suñu biir. ay weer ñu koy def ci àll bi waaye nag tabaski dañ di may ñoom doomu guet yi ñu gisante. ci amal sax ay xumbute lu ci mel na rawante gaal. jeexul tabaski sax day dem ba tam xarab gi feet gi fi mu nekk nii fii ba tam xarab bi du jeex ndax boo xoolee tam xarab bi suñu dugg si rawante gaal yi te yooyu yëpp si feetu tabaski la bokk. fonctionnaire bu jëlee congé un mois boo muy jël liggéeyam sax méttiwul mais bu mool moo gën a métti parce que c'est l'effort la siy def loolu tax muy reposer bu nekk. doomu Gendar yi nag ay jàmbaar fàq tëdd lañu fu nekk la ñu nekk ci àdduna bi di liggéey di daan seeni doole waaye nag tabaski moom duñ ko yemaleeg dara. Moussa Kaba amaana buñ ko waxee noonee sax tur yu ñu bari duñ ko jàpp waaye moo di Grand P acteur la doon it musicien bu fekk baax ci réewum Guinée mi ngi fii ci suñum réew ci senegal lan moo ko fi indi moom ak manager am waxtaan nañu ci ak Marcel Maroun. waa ngeen di gis mooy musicien guinéen bu njëkk a am ñaari million abonnés ci réseau sociale boobu di Facebook mu tudd Moussa Kaba ñu gën ko xamee ci Grand P mu di woykat ak acteur te nit yu bëri ràññee ko fii ci Sénégal semaine bi nag mu doonoon njëkkee li yoon muy ñëw ci réew mi ñu profito ci ngir dalal ko fii ci TFM lu ñu njëkk seetlu mooy musique daf di lu ko soxal lool. man xaw ma dudul musique dama ko bëgg am ci expérience di ci liggéey aw ma beneen métier. Ah. bu dul musique moom rek laa xam. sauf la musique c'est la musique que je connais. qui s'est vraiment engagé à être euh, dans la musique qui fait. Grand P artiste bu engagé la bëgg musique lool fonk ko muy musique mandeng musique mamaya ak yeneen bu dee nag wàllu album génn na benn fi ak novembre incha allah di leen génne ñaareelu album bi ñu ngi ci projet bi wàllu humanitaire la. nous sommes en plein projet pour un album humanitaire. teewu Grand P fii ci réewu Sénégal. Douai Djahan. Nous étions à Lomé. là où on ña nga woon ca Lomé capitalu Togo foofu ñu gañe faraay gu am solo muy prix du meilleur influenceur ak meilleur manager foofa la ñu doomu Guinée yi nekk fii ci Sénégal woowee ñu jóge fa ñëw ngir ñu amal concert de la réconciliation maanaam jubale doomu Guinée yépp ku ne xam na ni moom Grand P ab ambassadeur la di rataxal ay diggante rawatina aw askan. wu Guinée foofu nag bi ñëwee fii ci Sénégal profité nañ ci occasion bi daje fekk ay artistes yu mag ak ay nit ñu am influence su ko defee kon ñu wane ni Afrique benn bopp la rawatina Sénégal ak Guinée nga xamante ni daanaka njaboot gi benn la. pour se la main et dire que ouais, surtout la Guinée le Sénégal c'est c'est la famille quoi. Grand P mi ngi juddoo Sangiana nekk région Kankan ca Guinée jëmam ji doon li mu jëlee ci feebar bu tubaab di wax projet progeria wala syndrome Hutchinson Gilford bu benn docteur mënagul faj ndax ci li ñuy tuddee maladie génétique la bokk ba mu nekkee xale ba léegi la ko daal di dal ñu yàgg koo tooñee waaye taxul mi ngi gën di def buzz rawatina ba mu tàmbalee di ànd ak woykat ivoirienne boobu di Eudoxie Yao mais àndoo ak première dame ah, mu nga Abidjan moom lu tax ñëwul dafa jàpp ci lum ne moo tax àndoon Grand P nag mi ngi daal di tàmbali siiw ci benn spectacle ba ñu organisé woon Conakry yàggul dara ba kan 2019 bi jàllee ay star yu bëri di commencé bëgg feeñ ak moom comme woykat yooyu di Oumou di Sidiki Diabaté DJ Arafat ak footballeur yii di Paul Pogba wala bokk Naby Keita Marcel Maroun waxtaan ci wàllu football ak euh, déggoo gi nga xamante ne ji candidat yi xëccoo boppu fédération Sénégal bu football déggoo nañu ko déggoo ci ànd jàppale maître Augustin Senghor seen déggoo googu nag am na ñu mu neexul ndax dañoo gis ne lii di football bi dañ ko bëgg def mbirum xaritook yaa ma neex te duñu ci ànd tax ñu jibal pétition boo xamante ne ji seenu naqar ak seenu ñàkk ànd la ñu ciy wane Cheikh bu Diarra ñu doxal li taxi yi wund football bi wax. loolu moo soxal ñi jiite pétition bi. di ñaaw lu déggoo bi am diggante ñeenti candidat yi bëggoon jiite fédération bi ñu jàpp ni warul mën nekk. maître Augustin Senghor mandat am dafa jeex mandat bi mu jeexal nag dañu war a indi ye euh, dañ ko war a yeesal mbay Diouf teg li nga xam ne tey moom mandat am euh, Mati Touré teg mandat am Saër Seck teg am ñu ne nañu trouver consensus amul crise dafa jeexal mandat def na ñaar mu ñaan ñaar ñaareel bi ñu jox ko ñetteel bi mu forcé ñeenteel bi lu tax. Matar Ba ministre du sport ak maître Abdoulaye monsieur Abdoulaye Sow ministre de l'urbanisme war a mën a nangu wax waxu consensus fi nga xam ne ñoom en tant que état dañu waroon respecter loo texte bi. def na fi douze ans ci douze ans yi yóbbu na Sénégal ba premier niveau africain nangul nañ ko ko mais Sénégal amul infrastructure donc na jeex leng yi ñeneen. lañ ci bëgg a mooy Mati Touré dafa jeune dañ ko war a bàyyi mu jàng ci biir instance loolu c'est un faux débat nañ ko jox Saer Seck wala Mbaye mooy na am loolu la ñuy ñaan loolu ñu jàppee diil ñu ne dinañ ko naqarlu ci ñi jiite réew mi. dinañu bind ci boppam mm, kii nga xam ne tey mooy ministre des sports saisir ko ak ñi nga xam ne tey président de la commission des sports mi nga xam ne mooy Bounama Sall mi nga nekk président assemblée nationale pour ne la ne lii ñuy def ni forfaiture la xaalisu askanu Sénégal la ñu yor di ko foowee parce que ay bande de copains desi nañu rek dañuy def benn mafia tey football bi seen loxo duñ ko bàyyi. te loolu moo ñaaw mais boo demee fédération de handball même problème la fédération de euh, de basket même problème yeneen fédération yi parce que sax tane na amoon na fa ay changement mais yeneen yëpp syndicat yi même si la ni ñu koy ŋàññee politiciens yi di dañuy changer mandat yi dañu war a changer nit ñi noonu la ñu war a changer yeneen structures yi. ñii di signer pétition bi seen bébét bi di ñu jeexal pàccoo bi am ci football bi. mais li ñu def nii c'est juste structure la boo xam ne dañ ko monter pour mu mën a jàppale nit ñu mën a tey xaalis bi seen biir loxo ba pare bañ ko bàyyi mais loolu mooy li nga xam ne ñu ngi koy ñaawtu te dinañu dem ba ba ba fu suñu doole yam mais au moins na sénégalais ay xam ñoom tamit ñu xam ne am na ñuy ñaawlu li ñuy def rafetul. ñu jàppoon ko 7 août bii di ñëw assemblée général élective bu fédération bu football bi njëriñam léegi moo di xamle ki nar a jiite déggoo bi jamono ji maître Augustin Senghor ak Madi Touré ñoo koy xëccoo. des ba léegi ci wàllu tàggajaram waaye ci weneen anam mu di Jeux olympiques ya ñuy amal ca Tokyo kii di porte drapeau bu euh, Sénégal doomu Sénégal la bu fekk baax réewum France di Jeanne Bout euh, Bien moom Jeanne Bout Bien nag Sénégal gi la juddoo waaye ay waajuram réewum France dañu fekk baax mu teewal réewum Sénégal fële nga xamante ne moo di ci Jeux olympiques yi dañu ci ànd ak Marcel Maroon ci euh, portrait mu gën ñoo xamale ak moom. feykat bi di Jeanne bien moo nekkoon porte drapeau Sénégal ca Jeux olympiques yi tàmbale ca Tokyo foofu ci réewu Japon depuis démb mook judoka bi di Mbagnick Ndiaye ñoo tey woon drapeau Sénégal bi Jeanne bien mu ngi juddu juróom-ñaari fan ci weeru avril ca atum 1999 fii ci Sénégal ay waajuram di ay français waaye atu 2016 lay door jot nationalité sénégalaise gannaaw ba mu defee ay démarches yu bëri mu ngi tàmbale siiw ci course boobu ñu gën ko xamee ci turu Dakar Gorée gannaaw ba mu gañee ñaari yoon bien doon ku am résultat bu gën a baax ci 100 mètres nage libre keroog la woon ci février 2020 ca Limoges réewu France mu mujj ci am benn temps record bu di 58 secondes 53 mu dépassé nag kooku di Khadija Sis mi nga xamante ne atu 2005 58 secondes 59 la defoon foofa ca Nancy ba léegi ci réewu France ca mètres nage libre mu daal di amaat beneen record ak benn chrono bi nga xamante ne 27 secondes 44 la ko amee jamonoy championnat régionaux d'été ba amoon weeru juin atu ay ndam yi mu jot a am muy championnat d'Afrique de l'Ouest bu amoon 2017 gannaaw ba mu amee juróom ñetti médaille mu doon ñetti or ñeenti argent ak benn bronze ci jeu africain yu 2019 mu mujjee jeexal quatrième relais 4 fois 100 mètres nage libre ak 4 nage moom nag 28 juillet bii di ñëw lay daal di tàmbali compétition jeux olympiques yi foofa ca centre aquatique bu Tokyo Marcel Farba Maroun jaajëf jërë ngeen jëf yeneen mbokk yi ci ànd beeg télévision Futur Média foofee la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20 xibaar yi dina dellu si wet ci tubaab lay doon ak euh, Cheikh Tidiane Diaw jaa jëf mbokk yàlla ñu yàlla sàmm ñu fanaan jàmm ba sub ak jàmm.